bës cloche de notification bi aimé vidéo bi te daal di koy partagé loolu dina si am solo moo ngi noonu ñëwaan nag ci vidéo bu am am solo bokk na ci xew-xew bi nga xam ne nag moo ngi am fële si suñu mbokki dëkk africain yi li ñu def ki nga xam ne nag moo di député Guy mari Sagna dinañ si ñëw waaye tamit kaddu yi nga xam ne kii di Badara Gadiaga daat na koy yëkkati ci sorti premier ministre Ousmane Sonko nga xamne nak amna ay ministre yo xamne jamono bi dat nañ leen ni joxoñ baram ak tuuma japp ko ne nag alalu réew mi daat nañ koy yoré loolu lepp nak dinañ si ñëw incha allah. dara gulu gulu manam xaw da fay analyser xaw da fay jëm forcer gaay pour jëm leen tek ben pression ñoom ñu dégg ay wax wala ñu dégg yenn sanu ménage yi ba tax ñom ñoo ñu ñetti ministre de finance yu génn nan dañuy jéem wax ñom xam nañu xam nañu bu ñu defee xam nañ ñom bu ñu deful xam euh, xam nañu amna nak lo xamanteni bi bu ko ben responsabilité waxé si ño xamanteni dañu yoro won alalu rew mi si biir wax Ousmane Sonko waram ngaa égal sa yow yow ba dara gulu gullu mais Ousmane Sonko amna ku mu tuddi ni kooku dañ ko wo mu ñew ñu tégal ko dossier laaj ko mo mën na di indi ay layam layam layam kon kooku kon aduna du yag mukk ba mom mu tëb nan day def conférence de presse di weddi liko Ousmane Sonko wax te ñeneen ñi ci dess tamit Daouda Abdoulaye Daouda Diallo waa jo nu Amadou Ba ñoom ñep ku ne xam nga ni jaar nañ ci dossier yooyu seeni dossier mu nga tege kon maanaam yow fi nga warona taxaw di xaar la tagay taxaw nan ñoom dana warona gëni def seen conférence de presse da nga waral ni kon ana yoon nga kay fa ko waroon asar na yow badar Gulu Gulu ni ana yoon lan lay xaar si ni Ousmane Sonko tuddu tam yoron alalu askan wi te gem na nit Sonko dafa gëna a ubbil sax yoon ab liggéeyam donte la man nan dossier yobbu len ko ci yoon pour yoon war a def liggéeyam maanaam yow badar Gulu Gulu léeg say analyse day nek analyse yo xamanteni bi bii man dama ko yobbu si wa keur Dof rek wa sa xalaat day doon. te booy wax mel ni ku sënkaliku mel ni kuy sënkaliku mel ni ku ab xolam naqari si li ngay wax daal xaw ma sangar waxu tiitaru laa ko mën di tiitaru laa ko mën a tudde xaw ma borom xol bu tàng xaw ma borom xol bu iñaan si kii nga xamante ni moom la war a mën a identifier et justifier ay waxam ba war see mën a indi ay jàngatam waaye xam nga Sonko ndokk sax yàlla bi mu tuddee ay tur parce que bu waxoon rek daal di lépp kon senegal yi dinañ tourner wat laaj ko niko sonk ñi ñi muy ñan la ñan lay léebal xanaa dafa ragal wax sen tour ci tour wala ndax dafa am lu mu séeq ak ñom bay junj senegal yi bañ leen wax tour yi mu doon waye dafa jaar ci digg bi leral tudd ñetti tour yoyu diw diw diw diw ko ku tudd aw touram kon ñoom ñett ñooñu nak xam nañu li ñuy def xam nañu seen dossier mu ngi tege ci loxol premier ministre bi xam nañu ni yàgg seen dossier yoyu dinañ ko yobbu ci yoon yoon dina def liggéeyam moo tax kon ñooñu li leen war mooy noppi ñu pat pataaral ba keroog yoon di def liggéeyam si liggéey si seen kaw parce que ñoom bu ñu tëbee rek acharné wu di tontu Ousmane Sonko rek su boobaa yoon tamit day gën a acharné wu seen kaw sa seen dossier dañ ko jël rapidement mu mën a gaaw ñu yëpp ko si yoon waaye seen tekk tekkaaral bi ñu def ni pat pataaral bañ a wax moom moo leen may xaw may jàmm sax ba nga xamanteni bi yoon dina xaw a mën a am benn tek tekkaaral bu mu def ci seen dossier yi ngir gën ci mën a amaat ab liggéey gën ci mën a amaat loo xamanteni bi leer na nañu ba bis bu ñu leen yóbboo si kanamu attekat bi attekat bi dafay am lu muy sukkandiku ba xam ni kat kon ñii lii ñu doon waxaloon ñoo def kon ba dara gulu gulu saraxi kasaw kasaw yi dee ko bàyyi yàgg na leen ko wax nag Ousmane Sonko lépp lu mu ba wax ko yéen ñi àndul ak moom wala yéen ñi ko contre da ngeen di yaakaar ni accusation bu mu jël la teg ko ci kaw ay nit parce que man damay jàpp ni kuy accuser nit ki di wax ni moo def nangam doo tudd aw turam parce que la tax doo tudd aw turam mooy dangay ngay ragal ëllëg mu yóbbu la ci yoon waaye ki nga tudd aw turam da nga xam ne da nga téye ay dossier ba mu leer naññ am ci lu leer yi dañ ko defon nak jamono bi mu néewee doole si jamono Macky Sall si deuxième mbay ñaar mu tuddu ko mbay ñaar ngeen ay ko ruux ko ba mbay ñaar dem naan da koy yobbu si yoon ba am yëm ko xañ tay ji ci jamono bi nga xam ne bëggoon naa candidat waye dossier bobu taxawat na tay ñu war ko te yàgg yàgg Mbaye Niang dana dem yoon kon Badara Badara Gadiaga bu ni da nga am sañ sañ wax da nga wara wax tax nga nek ci télé télé di gulu gulu sa gulu gulu fi tay mom da ngay daanu. gi mari sañ man li ma koy digal mooy na dekk ñay yoyu lam koy rey donc du mujj fenn soo ko benn fan ñaari fan pere nan sa ñooñu mu ay dof lan yoo xam ba nëgë ni ak yeewu te nekkul si ñoom te nanguwuñu ko leen yee parce que seen njiit dafa ya nekk ay dictateur lañu ragal nañu seen njiit ba ñoom duñu am benn régulation boo xam ne dinañ ko jéem a def kon boo demee si seen réseau yi dafa am dara loo fay jéem a leen ko kaasal ay du seen président yi fa nekk dictateur la dom doom jafe nekk bàyyi fi nekkoon dom di ñëw wuute kook état bi si boppam moom mooy yebal ñu lay rey te après du mujj fenn waaw parce que maanaam si walu dem dem daal bu dul jot mu dul maanaam assemblée euh, ki CDA boo xamante bi am na te suma jumu seen assemblée bi mu nga nekk Nigeria la xawma waaw bu dul yooyu moom nga xam bu dee foofu moom dana am walu sécurité dina fa am waaye dem ay réunion yi nii ak ak même ba si hôtel yi muy dal ak yi ngeen xamul si réew ñag yi nii bu moy tuddé fa fa fa la gaay jël bekkenam yooyu du Sénégal de Sénégal moom mën nañ koy nekk ñoom ñuy taloro yu bare bari masla beeg jamu je yep parce que ñu bok senegal waye rew ñag yi ni comme ñom seen doomi rew ya fa nekk sax ñi mu ñu won nek ay bañkat ñi mu ñu waré seen seen naqar si seen rew na ko seen yoré yore na yow mo fa dekkul na nga naan koy dem di len jéem wo ci si manam di len jéem ye bo mu sant dal fa la gay fàtte ba kenam na moy na moytu ñag yi. man xam nga bo fàttali ko dem ci ginaaw sa biir parlement bu ki nu mu assemblée bu cdao bi sen Niger Nigeria gis nga député Evaré boobu jugoon ndaw soosu jugoon di ko attaqué ji waaw léegi nag mu ngi dem si dëkk ñag yi nga xam ne am problème nga xam ne ñoom daanaka moom ngi mari sadi daa judd sax fekk fa histoire boobu ak problème bi ak genre dictateur boobu am fa mu naan day jéem dem di jéem a lijjanti di leen imposé ni leen seen président bii fi nekk xaw ma toogal ab dictateur la bàyyi bee fi nekkoon bàyyi bi deene doom ji ñëw doon ko ba nga xelum askan wi du question ni population ba ñoom ñooy tëb di ko attaqué de gouvernement ba ci boppam état ba ñoom ñooy yebal ay nervi ñu attaqué ji ko te buñ ko reyee lu mujj fenn dem naan ngir mel ndey saanam ndeysaanam xeexal na Sénégal doon xeexal Afrique dem na réew sàngam fa leen gaa yi fàtte bakkanam gasan ko su fàtte ko xaw ma nag ba xam ñoo koy jox ay conseil ak ñan lay déglu waaye nañ ko wax ni ko hey yamal si fi nga war a yem. soo demee si parlement bu CEDEAO waxal la nga war a wax su bu sa mission jeexee nga jël sa avion ñibbisiwaat. waaye bul jéem a participer mukk ci manifestation réewum jàmbur wala réunion yoo xamante ni bii réew moom la concerné bu fa jéem a sax dugg bu la fi éviter sax bu fa dem dañ koy rey donc du mujj fenn mun na am réewum liggéeyam nekk sa la mu nekkoon xam nga loolu moom moor ñi ko mën a xeex waa dëkk ba ñoom ñoo ko mën a xeexal seen bopp parce ñoom ñoo fa dëkk ñoom miin seen seenum réew ñoo xam fan la ni toog fan war a jaar waaye yow dëkkoo fa xamoo mbedd yi xamoo kër yi xamoo roq-roqaan yi nga dem naan da nga ni fang fangal di jema xexal wa rewma bu lay tour lay japp man nan la balaka sax seen aéroport yi andi la manam ñu noy de sax lu man gimma saa yi gimma saa yi est ce mu ngi mu ngi xalaat sax boole si man nan la fay defal ay accusation yo xam do man xam yo foko ci jetare man nan la bàyyi parce que état la état nga jamar lol man na bàyyi da nga wara a bi so wali sax yu xamul ci yow ba ci poste police bi ñu taxaw di wax ak yow takal jël ab dorog taqal la ni ya ko yoron kan mo lay setal boo tax ñu mën a mën a saa yu ne xalaat li muy def kan mooy taxaw man laa setal te ñoom buñ la ko takkalee état bi ñoom ñooy am sañ-sañ teg la loxo am ñooy am sañ-sañ àtte la si seenum réew ñooy am sañ-sañ tëj la si kaso bi donte la député CEDEAO nga nekk sax président CEDEAO seen yoon néew si kon man li ma koy digal di ko wax bu ña koy ña ko jege nan ko wax mu arrêté yi muy def bu dee ab xeex la bëgg wala combat la bëgg na ko xeex Sénégal gii mu dëkk Sénégal gii mu dëkk saa mel na mbedd xam nañ ko fi xam bu laqatu jote xamna na fa muy laqatu comme nim ko daan defé bu déféré jote xamna na gaay ni ko daan déféré way rewum jambour yow wa réew nga fa dekk ni ñu ñoo genn di xex seen li la ndax rewum rew yow nga ñëw naan la nga ngay nekk ben saaru dirigeant bo yalla ni dirigé di len wax na len ka leen xex na na na yalla ginaaw na delu ginnaaw bu bëggee dundum gi ci ne gaay di dinañ ko ray wala buñ ko di len ko tegal ay accusation yo xamanteni bi ci rewum jambour du man dara kenn du ko mëna sétal nak wa ay avocat la fi jël ak yu kenn xamul bu waa réew ma taxawee lànk surtout président dictateur yi yow avocat juge ba yi la war a àtte ñoom moom la moom la ni wax àttel ma ko si condition yi ma ko bëgg su boobaa kan ma siy mën dara takal nan la da ngaa yoroon dorog da ngaa yoroon yàmba lu si nit man ma dëgg ma defaat na delu ginnaaw si muy def